yàlla dinañ ko gën a ñàkk beneen bi ci topp mooy jamono yëpp xupp yi jëm ci journaliste yi bëri na muy jóge fu ne nag ay menaces ki pression loolu itam defe naa loo xam ne la war nañ ci taxaw def ci jàngat bi ci mujj nag mooy réseaux sociaux yi waaw nga xam ni wax dëgg yàlla am na lu mu indi gàllankoor ci suñu liggéey parce que ñu bëri duñu ràññatle waaw la nga xam ne mooy liggéey journaliste journaliste di ko def ak li nga xam ni moo nekk ci réseaux sociaux yi te képp koo xam ne jóg nga am sa clavier mën koo def ñu koy féetale journaliste yi hmm. ci ay ñaawteef te du ñoom dëgg la donc loolu yëpp lu ñu war a leeral la xaw ma nag son bi leer na wala déet waaw non son bi baax na maanaam euh, pour que ñi lay seetaan mën laa gis donte xam nañu kuy Momar mhm. dañu bëgg a bàyyi rek ñu gën a joyanti lii di caméra incha allah bu soobee parce que poñ boobu bëgg naa ñu taxaw ci mhm. lu ñu naan charité bien ordonnée commence par soi-même euh, daañu waxtaan nag parce que presse bi tamit euh, bëri na ay problème lool Babacar junj na ko mhm. yow tamit wax nga ko ñu waxtaan tey ci problème yi nga xam ne maanaam lañu fas yéene indi ci table dafa mel ni nag tey bu ma souligner maanaam ku nekk bu ma ko joxee kàddu euh, lu tubaab bi naan on a l'impression que ne vraiment lu ñu naan partout va mal ça va mal partout. parce que euh, bu ma joxee kàddu gi kii di Gora Khouma Gora Khouma dañ ko invité moom mooy président de l'union di routiers du Sénégal syndicat boobu bokk ci CNTS léegi parce que Gora euh, xam nga dafa am solo tey teewaayam ci plateau bi. ndax euh, maanaam ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllum transport dégg ngeen coow lu bari na lool ci wàllum transport euh, dégg ngeen tamit fan yi amoon problème tamit ci wàllum li nga xamante ne moo di carburant bi mais man sax bokk na ci li ma ci gën a maanaam métti maanaam ñi nga xam dañuy faral di loru ci li nga xam ne moo di wàllum transport gis nga ci fukki at yi mujj yi bañ koo xaymaa ne nañu presque juróomi junni nit ñàkk nañ seen bakkan environ 5000 personnes te loolu bari na ñi nga xam ne nag am nañ ci ay loraange kenn xamul nu mu toll waaye ñi ca am loraange ñooñu tey lan mooy doon seen ëllëg lan la def est-ce que quand yenn salaire yi nga xamante ne ñu ngi koy am ci li nga xam moo di wàllum transport bi est-ce que ñoom mën nañ ci dund convenablement maanaam est-ce que mën nañ ci am dund boo xamante ne dund bu tey la Momar yaa ngi koy junj sànq ci li nga xam moo di quand même la presse ndax kenn demul ñun tam ñu des ndax am na yenn salaire yoo xam ne ma yàlla baal baal oh. ce sont des salaires dérisoires yoo xam ne euh, nit yi yi ñu ngi koy dund ba moo tax quand même euh, lu ñu naan quand même c'est une porte ouverte boo xamante ne lu nekk nga ko ciy gis ndax tamit euh, lu ñu naan ki la abali bëtam fu ko neex rek ngay xool mm-hmm. te muy dëggit kon góor ñu ngi lay nuyu di la dalal di rafet lu baax sa teewaay ci plateau bi voilà merci Diaby ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñu ma partageel plateau bi di nuyu également le perme de conduire et la carte grise ñoom ñi nga xam ne ñoo ma mandaté pour ma toogal leen fu ñu mënul toog waaw fu ñu toogut euh, di jaajëfal la press ci seen journée bi di leen ci kañ di leen ci naw bu baax a baax a baax képp kuy porteur de fois moo xam syndicaliste nga moo xam politicien nga loo am ci presse nga jaar te presse moom mi ngi toog fu mu toog euh, di rafetlu émission bi aussi Euh, wax ne dañoo war a wax ci wàllu liggéeykat yi euh, wax naa ko daaw waxaat naa ko ren ci li nga xam ne tey jii moom la central yi di def muy aada di déposer kaye de doléance man damay wax ne amul njariñ kaye boo xam ne bii boo ko déposé présidence lundi bu mardee boo dee mbëbës fekk fa <laughs> boobu cahier jaru sonn xanaa kay bëgg photo président man damaa jàpp ne boobu cahier de condoléance la ndax <laughs> travailleurs yëpp dee nañu. waaw yow góor waaw cahier de ah. condoléance la bu ñu jox boroom réew mi xamal la ko njabootu liggéeykat yi ñu ngi ci sukkuraat ñenn ñi dee nañu. ñu def si néew nañ leen sauvé kon loolu du ma ko taye di wax parce que bu ñu waxuma sax yu yu yu yàgg yi mais bu cahier bu 2020 bi rek dafa doyoon 2021 ñu téye ko lijjanti te cahier 2020 bi. bu fekkee ne chaque année ñu jox la te saa boo ko joxee bu boo ko tegee foofu mbalit oto mbalit bi ñëw yóbbu ko nga desee loxo yi ne aw caaxaan rek la ba tax ne damay wax ne secteur yëpp am souffrance kon secteur yëpp a taxaw nag te xam ne nit bu la doy loo da nga a jëfal grève générale moo fi war am général secteur yëpp am problème grève générale boobu moom mooy raisonner pouvoir public bi mooy raisonner le patronat bu fekkee kenn ku nekk gis sa bopp ci yëf yi di wax ne wax nga ko léegi barki démb di nuyu de passage euh, le camarade Mbaye seen moo mooy président euh, GIE des chauffeurs hydrocarbures euh, nga xam ne ci combat barki démb rek lañ jógee yàlla defal ñu ci ndam ndax ndam li mooy la la lañ bëggoon lu ci bari am nañ ko waxtaanee état suñu xel dal dal na ba tax ñu lever mot d'ordre bi le samedi loolu nag ay atelier lañ ubbiwaat. di waxtaan pour préparer la convention collective du secteur hydrocarbure incha allah rabi jeudi dinañ ci sóobu bu baax a baax baax tey jii rek amoon nañu réunion ministère du travail sóobu bi keneen bi mooy les cimenteries du ma tudd benn cimenterie travail routier fa nekk dañoo nekk ci problème yu rëy rëy rëy ñi ci ëpp ci ñoom amuñu ay déclaration IPRES ak caisse social sécurité sociale te fu ciment am ci Sénégal ñoom fa yóbbu muy trois entreprises yi nekk fii ci biir réew rawatina nag ñi nga xamante ne ñooy CDK nga xam ne mooy benn tur du mu tudde ndax day nuyu publicité mais dañoo war a gouvernement dañoo war a jàppale patron war jàppale ba travail routier yooyu gis seen bopp ci li ñuy liggéey mu des nag beneen secteur bi nga xamante ji secteur informel la moo xam transport de passager la moo xam transport lourd la dañuy wax ne ci transport lourd tarif normal ton kilométrique yàgg nañ ko réclamer te gouvernement dañoo seetaan tarif boobu moom mooy tax entreprise yi am stabilité ba mën a jël en charge seen travailleurs yi mais le système courtage bi dafa dugg ci transport sori ca lool lool lool lool lool lool bay kii moom otaam mënu ci am dara kii daal oto yi mënu ci am dara ka ca mën a am dara mooy courte courtier bi ki nga xamante ji demul dikkut moom mooy lekk xaalisu transport loolu bokk na ci li nga xamante ji war nañ kaa wax en tout cas li wéte mooy hmm. travailleurs yi bu ma ci doon man gisuma secteur boo xam ne bii nekkoo ci ay jalte jalte gisuma ko jalte hmm. jalte yooyu nag bu kenn beru di régler sa comme kenn ku nekk yàgg naa beru di régler ses problèmes te sottee gut kon dañuy dajaloo ñun ñëpp régler ko noonu parce que réew mi ñun ñëpp a bokk. d'accord jàmm la ñuy ñaan ñu ngi koy ñaan ci barke maam li moom Mahdi jàmm jam Sénégal yàlla yokk waaye nag syndicaliste daal day nuru syndicaliste nit ñu sonn nañ bi ci des barki de mooy jaay le 3 janvier am nañ convention kii protocole d'accord bu ñu signé ak ministre euh, Mansour ministre des transports lu toll li signature nga def ko yàgg sa gouvernement mu engagé boppam engagé gouvernement bi engagé même président de la république ñu jóge fo dara amu ci tous amu ci c'est une honte c'est une honte gouvernement daa war respecté signature gis signature bu la doon rey te doo ko jëfee sax bu ko signé mais signé ba pare boo jógee boo tegee sa bic na mbëllee loolu du du ko def léegi góor yow yow dugal kon dugal nga ñu ci waxtaan bi léegi comme dugal nga ñu ci dañ ciy <laughs> sóobu rek directement jox kàddu gi euh, madame Bassine Kane mi nga xam ne moom moo jiitee aussi des femmes du SAMES euh, nekk it vice présidente des femmes de la CNTS FC authentique di centrale bi nga xam ne Baxaw moo ko jiitee soxna si bàyyi nañ la kàddu yi gannaaw bañ la nuyoo di la dalal jàmm euh, di nuyu sama waa central di CNTS FC porte du changement authentique maa ngi maa ngi tudd Bassine Kane nekk vice présidente national des femmes de la centrale mhm. suñu présidente di Adja Michel Fall ma koy saluer au passage bokk ci benn syndicat euh, enseignant bu sama secretaire général jiite muy monsieur Ousmane Diallo nga xam ne moo topp ci baxaw mooy premier vice secrétaire général de la centrale ma nekk présidente nationale des femmes mhm. d'accord ñoo di nga ñu wax tuuti ci njàngale njàngale parce que gis nañ bëri na coow tamit lool yooyu yëpp di nga ci indi ay kàddu wala waaw waaw waaw am naa ci wala yéen seen côté tout va bien tout naan euh, enseignement tampi tampi boobu moo xew léegi slogan la boo xam ne waa Fuuta ñoo ko génn Touba Maal ñëwuma fi rek pour enseignant bi